l'ensemble de services yi nga xam ne ñi ngi fii ci dëkk bi tey service de l'État wala ñuy dem membrement de l'État waaye nag ànd ko ak suñ bokki taalibe yi nga xam ne euh, ku ñëw ci la leen fekk ku dem ci la leen bàyyi muy daayira yi ci dëkk bi ak moom association des jeunes yi ci dëkk bi ak groupement de femmes yi ci dëkk bi ak bàjjani gox yi ak euh, lu mel ni daayira Touba ca kanam lu mel ni Hizbut Tarqiyyah lu mel ni muqaddimatul xidma lu mel ni xidmatul xadim bi nga xam ne naka jekk ci la ñu nekk di ci assainissement ak di nettoyer regard yi ak yëpp ñu ànd ko ak ñoom ak euh, groupement de femmes yi ak association yi nga xam ne ay bonne volonté lañ yoo xam ne at mu jot ku nekk dégg na seen jàmbaar ci euh, inondation bi ni ñu ciy doxalee. gis naa ci lu kawe sama njort nag ndax wax dëgg yàlla nit ñi la république wuyu ñaan yàlla nit ñu ko tàmbalee rek ñu continuer ko noonu ndax. nawet bi moom ku ci nekk xam na ne euh, boo dégloo annonce météo bi dina li mu wax Sénégal yëpp déglu nañ nee na dina teel dina bëri dëkk bu mel ne Touba nag ku wax nawet njàqaral sa xel di njëkk dem ndax problème assainissement da daal di gis na Touba bu nawet ñëwee difficulté bi nit naa ne lii ñu tàmbali nii muy sécurité tuyaux yi sécurité canal yi loolu dina tax du kon day ñaan yàlla askan wi buñ ko tàmbalee ginnaaw lancé nañ ko officiellement après nag ñu dellu ci seen koñ ak seen quartier yi fépp foo xamante ni am na ab taq-taq ñu fexe koo dindi fexe ba teew yi benn sakk-sakk du ci a am ban ndox bi bu ñëwee du fa mën a tax du fa mën a taxaw mu dem ci noonu ñu ko tàmbalee nag ñaari continué ko noonu lii jàpp naa liggéey la boo xamante ne nii ah ñu baree baree baree baree bari te ñi nga xamante ne nii sëriñ bi jiital nañ ko ci li ñuy def gëm nañ projet président de la république ca suba ak léegi ñoo ngi ci canal yi di ñu xarti kon ñi nga xamante ne nii ñu ngi ñuy xool te toog ci seen i place jàpp naa ne même suñ ñu mënul ñëw ci liggéey bi dinañ am ngorug dem jëndi ay poubelle teg ko ci seen buntu place yi suñ naanatee ba pare jël ko lii daal jàpp naa ne su continuer ndox mi nga xamante ne nii daana bouger ci mbedd yu bari fii ñu taxaw di 28 moom jumaa ji su tawee day taa yeneen ak yeneen te li ko gënoon a yokk mooy ndox moo xamante ne nii du jàll ci canal yi ni mu war a jàllee. sunu spécial la boo xam ne Sénégal gépp waaye sunu spécial la pour Touba tam Touba gépp ni ñu ko def fii tam bari na ci dëkk bi foo xamante boo fa demee ni ñu ko defee def nañ ko fa dañoo commencé fii ni mais buñ paree ni ñu ci bari tasaaroo nañ ci dëkk bi bari na lieu yoo xamante ne di xam nañ foofu foofu mbalit nekk danañ fa yebal équipe yi ñu dem fa tonni mbalit bi jóg tey dafa nekk journée boo xamante ne euh, le président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre ak le gouvernement du Sénégal ñoom ñoo ko instauré muy journée boo xamante ne dañu sant nit ñi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal yëpp ku nekk gox bi nga nekk nga génn nettoyer dëkk bi loolu muy loo xam ne moom la ñuy wax action citoyenne xam nga ñun euh, Sénégal dañuy fàtte ne souvent ay citoyen te citoyen li ko njëkk a war mooy fa mu nekk muy fexe ba mu nu muy muccee ayib donc journée bi lancé nañ ko tey donc partout au Sénégal donc Touba mosul des ginnaaw donc gis ngeen fii au niveau de la grande mosquée euh, jël nañ fii départ le préfet ñëw na le maire ñëw na l'honorable député Cheikh Thioro Mbacké l'honorable député Mame Fatma Mbodj Pastef Touba ak ñëpp bokk ci coalition bi yëpp ñëpp ñëw nañ ñu lancé journée bi donc comme ni nga ko gisee euh, ñu ngi jëm marché Ocass commencé fii si jumaa ji muy nekk loo xam ne population ñoom ñëpp génn nañ mu lu ñu rafetlu aussi et c'est à répéter parce que dëkk bi dañ ko war a taaral donc ñun comme que ñoo fal le président Bassirou Diomaye Faye action boo xamante ne initié nañ ko ñun dañ ko si war a jàppale lépp lu mu lancé dañ ko ci war a accompagner te lii mooy wane ne sénégalais yi fal nañ ko mais seetaan nañ ko ndax ñi ngi ñëpp dëkk yëpp ñëpp tey génn pour accompagner ko donc li action citoyenne la bu am solo boo xam ne c'est à répéter et ñi ngi remercier population Touba bi nu ñu génne boo xoolee ak les images di nga gis nu ñu génnee. du doon loo xamante ne nii nag même bu ko Diomaye digle wutoon sax daa doon lu war ndax set ak setal euh, dafa war bépp jullit rawatina nag bi ko président diglee président de la république diglee pour ñu def ko pour éviter inondation bi. ndax ku ne xam ne ne regard yi su taxee ndox mi du jàll te bu ndox mi jàll euh, jafe-jafe day daal di am euh, te comme bi mu toogee yàggul dara xaju fi kon mu commencé lii rek ñun waa ay Aïda Mbodj ñu ñëw jàppalee ko ngir dëkk bi set regard yëpp sekkartiku ndox mi mën a jàll Sénégal jëm kanam. tey président de la république mi nga xamante ne nii Bassirou Diomaye Faye am na vision bu sori ci réew mi mu jàpp ne lu baree baree baree bari dafa war a soppeeku muy ak cet war jiitu ci am réew. mu lancé le premier bi nga gis ni waa Touba génne maanaam gis nga ay patriote ñu bëri lool ci liggéey bi mais noonu la bëri ay kuréel yu bëree baree bare baree bëri parce que xam na ne mënuñoo tudd ab dëkk tudd développement te tudd ñu ak cet ah, kontaan rek kontaan rek te dañu bëgg maanaam nañu ko def sakkaane ñu di ko def noonu ndax li ñu woote ne pour ñun la defar Sénégal rek parce que moom wone na ko bi mu jëlee pouvoir bi ñu mu yore balee nañu bale mu set wicc moo tax surtout Touba fii am na solo trop waaw li mu def kontaan na to di ñaan yàlla yokk rek. biñ koy yëgee mbégte lañ ci am mbégte mu réeré lañ ci am comme ni ko président Diomaye waxee nga xam ne tey mooy suñu boo dañ koo jagleel set setal Sénégal gépp rawatina wala bu ñu ko waxee lu mel ne Touba. Touba mu sa des ginnaaw ci procès passif surtout rawatina loolu yëm ci wàllu mbale nga xam ne buñ ne dëkk bu ñuy set bu ñu koy wax Touba moo war a jiitu loolu moo war a tey bu ñu xëyee ñu ànd ak waa passif ànd ak dëkk bi yëpp association yeeg daayira yëpp ak waa waa bureau bu Pastef ak membre Pastef yëpp àndandoo ak sympathisants yi ànd wàcci teere bi ngir seetatal dëkk bi. tey nag sensation bi ma ci am mooy bég rek euh, gën a amaat confiance suñu euh, président Bassirou Diomaye Faye tey acte bi mu def même bu dul woon nawet bi sax tey jii daf ñoo war acte citoyen lañ acte bu tamit bu noble la tey ñëpp xam nañ ne tey comme ñu ko waxee nawet bi mu ngi ñëw xëy na gaa régler fi problème inondation yi fi ndax bientôt les les mais nag lii nag dina am lu bëree bëri loo xam ne tey jii dina ko wàññi ci inondation yi ñu seet seetal dëkk bi sekkat nii fan kii euh, canal yi comme ça bu ndox mi ñëwee sax am lu mu évacuer mu dem waaw mu ñu ci kontaan lool nag xam naa nag jox nañu lu ñu miin ñun waa Touba jox nañu lu ñu tàmm loo xamante ni nii ñëpp xam nañu ne jigéen Touba jeudi wala vendredi yëpp set setal ñu dëkkee jox ñu lu ñu miin tamit nu waa Pastef ndax ñëpp xam nañ te ne Pastef fépp fu mu fekk salte dina ko dindi te booy booy booy booy soli ay yére yu set di lekk lu set wala ngay nekk fenn te environnement bi ngay bi nga nekk setul doo am tamit benn sens loo xamee ne daal ñu ngi ciy remercier bu baax le président Bassirou Diomaye di ko dundee ak mbégte rek leen nuyu di leen ziar di nuyu ñëpp képp ku ñuy seetaan rek ñu ngi lay nuyu di la ziar di wax ne di ko di kontaan daal ndax ndox du bàyyi yoonam parce que ñun dëkk bii ñu dëkk tàmm nañ lii sëñ bi day joxe ndigal ñu génn kon bu président de la république joxe ndigal ñu génn dañuy def nañ naan def rek te ku ne xam na Pastef bu Touba lépp luy ndigal muy yoonu murit muy yoon bi jëm ci parti bi dañ ciy di am taxawaay bu rafet. njëkk njëkk ji mooy kontante biñ ci am ndax euh, ku xool président Bassirou Diomaye fay ak euh, taxawaay bi mu am ci réew mi ak yéene gi mu am ci réew mi woote journée nettoyage boo xamante ni chaque le première dañ koy def fii rawatina fii ci Touba nga xam ne département Mbacké kenn ku ne gis na taxawaayam bi mu am ànd ko ak président Bassirou Diomaye Faye kon nag bu wootee ñun waa Touba gi kenn duñu ci kenn duñu ci jiitu te boo xoolee Touba ñi fi nekk ni ñu àndee taxawaay mobilisé wu ànd ak coalition bi ànd ak waa dëkk bi ànd ak ñëpp boolewuñ ci daray politique ànd liggéey setal dëkk bi jàpp naa ne loolu bu ñu ko continuer di ko def li ñu bëgg mën nañu ko am ndax boo xoolee fii tey dëkk bi canal yi ni mu bougé ak li ci ne ci suuf ak li ci ne ci dafa jël ay matuwaayam ndax jël na ay hydrocureur am hydrocureur yu bul yi ngay gis comme maire bi moo ko jënd moo leen moom mais gis nga ONAS aussi indi na ay hydrocureur am commune bi jënd na piti matériel ay pelle ay râteau ay bërëmin ay brouette yëpp pour ñu jox ko mbooloo mi ñu ànd liggéey boole ko personnel commune bi nga xam ne trois cent di personnes yi nga xam ne ñoo nekk ci FERA bi di liggéey ak service assainissement bi nekk ci commune bi ak commission de assainissement bi ñoom ñëpp ñu ànd maanaam euh, ak euh, bureau municipal bi ñoom ñëpp ñoo teew tey kenn ku ci nekk ànd ak équipe ànd ak groupe ñu orienté leen kenn ku nekk am na foo war a jëm bu lancement bi noppee loolu la ñu ko programmé noonu lañ ko doxalee. pour pour man question de volonté la rek nit ku ci nekk yaakaar naa amoo droit sax jënd mbuus naan ba pare sànni di dem sa kon kon jàpp naa ne takkal sax moo wërta am ba setal di war am. mais buñ góorgóorloo ba taxalit nañ góorgóorlu ba mën a seetal rek pour man président de la république lancé na signal fort na ko Sénégal yëpp accompagné bu ko defee dégâts yi dina mën a wàññeeku daal ba nawet bi ñu dugg ci bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulilah c'est la première fois daal bëgg nañ dund ren nawet boo xamante ni dëgg-dëgg duñ ne euh, mën mi dinañu sonal mais nag dëgg-dëgg dina woon dégâts yi dina mën a wàññeeku daal mu lancé rek mooy dama bëgg a woon nit ñi léegi ci liggéey lañ toll léegi coow léegi yëpp nañ ko teg suuf àndandoo liggéey defar Sénégal ñëpp ñoo bokk Sénégal nañu jéem defar ko wax jeeg yëpp jeex na loolu moom war waral tey jii mag ñeeg xale yëpp mobilisé Touba wër jumaa ji ba mu set di dugg marché Ocass di dem ba euh, ci bàjjeeg yëpp lañ koy nettoyé di xamal ne wax ji lañ bëgg ñu arrêté ko jéem a liggéey ku nekk fa nga nekk nag fa góor ñu jéem a defar Sénégal kenn duñu ko defar jumaa ji du ko defar Sonko du ko defar yow mii doo ko defal ñëpp a ciy dugal seen loxo Sénégal gu njëkk daal fàtte nañ ko gu bees dañ bëgg a tëgg kon ñu ànd ak jeunes yu engagé ne ci yi di di dindi ñi leen di may ndox di leen may ndox ñi leen di jox lekk di leen jox ndox lekk kon wax dëgg yàlla président amul lu ñuy def lu ñu di ko félicité. ku ne xam na ne canal yi nga gis bi ñu déparé ci 9h 9h30 ak léegi jëm si ci carrefour 28 mënuñoo romb 28 lan moo tax mooy kanaali yi. dafa fees dell ak suuf ak mbalit. na ñu ñëw rek nañu ñëw ndax lii ñëpp suñu liggéey la surtout bu ñu ko defaloon si dëkk Sëñ Tuuba suñu bopp la ñuy defar par tout Sénégal fu waay nekk rek na xam naa ñu ngi ci yoon bi. xam naa ni dëkk bindoo dafa am fokk dañu xëy jéem am lu ñu yaxantu ji jaar ci marché noonu waaye gëm na ñëpp dina ñëw incha allah aussi tamit di première fois la nii mais da nekk na loo xam weer wu dañ koy def bëgguñu ko def loo dañ koy def benn yoon tey pare ca dañoo bëgg weer wu ne ni ko président waxee dañ koy def dañuy wàcc terrain bi di settatal dëkk bi ñu ngi commencé ci jumaa ji buntu kër Sëñ Tuubaa ñoo ngi ni bu nit pare añ yi nanu ñëw gontu ñiy lekkee gun sonnee nan dem añi te ñëwaat nan nan wane daal exemple daal Sénégal daal sàppee ko noonu beneen bu bees lañ bëgg waaw ñëpp nekk benn bokk ndey bokk bàyyi ñu defar Sénégal. Euh, démarré nañ ko tey te luy continuer la chaque le dëkk bi dinañ génn ndaw ñi dinañ génn pour jéem a déboucher canal yi pour jéem a setal dëkk bi ndax mënoo tudd ab dëkk te jiitaloo ci set. fexe ñun lee citoyens ñu fexe ba mu nekk ak continuité bu mu ragee yem tey ndax set du nekkul ci benn jour set moom c'est pour l'éternité ndax lépp loo mën a def rek te amoo set du jëriñ dara. di ko continuer di ko maintien daal parce que set setal bi ne warul nekk benn journée rek lii dafa war a am tout les jours surtout nawet bii di jub si bu soobee suñu borom dañ koy continuer incha allah dinañ ci gën a waxtaan. lii nag day continuer bëgg nañ chaque le premier ñu def ko chaque mois bu teru le premier bi ñu def ko. jël suñuy engagement di ko def parce que ñun li ñu war mooy ñu jël suñuy engagement di ko def. dis nañ li ndaw ñi di daj dinañ jam wuti ñoom ay poubelle ndax poubelle seerut soo amee 5000 francs di nga am poubelle yaakaar naa tey seen ngor mayatu leen ñuy naan ndox wala ñuy naan kaasu café di ko bàyyi muy naaw di ñëw ci canal yi di fatt canal yi. di sant nag waa dëkk bi ci tuuru sëriñ bi ndax biig la ko sëriñ bi leeralaat nañ ko dem ne ko tàllal ko loxo ne ko ci ñaan. ndax ci la ñu bëgg a xëy mu ne képp ku ci yëngatu yàlla na nga daje sëñ Tuubaa lay fay yàlla na ngeen na leen sëriñ bi gàttanu noonu la ñaana ñaan gi kon nag képp ku ci yëngu wala nga wax ci wala nga ñëw ci rek na nga xam ne sëriñ bi ñaana na la sëñ Tuubaa gàttandu la ci sa yitte ak sa mbiram jamono képp ku ci liggéey sëriñ bi dana la fay ndax ku liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal nga yàlla te ku yàlla yàlla dana la fay te pay ak yàlla xajul ci nit